في القلب في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون jërëjëf daam ñu ngi la koy delloo di la fay yow it di la baal wàq di la baal wàq di leen borom mboolem jëggal waaw jëmm ji nga xam ne moo ñu fa dajale mooy Seydina Ousmane dafay jàmbari fàkk tëdd yoo xam ne ne maanaam lu dul jàmm yàlla liggéey Serigne Touba ñoro ko ki nga xam ne nag moo doon buntam ci Serigne Touba di Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni lépp loo xam ne ne mooy mooy ndigalam mosu ko baay ginnaaw fu ko ndigalam fekk Dakar naa moo jóg na ci waaw lépp loo xam ne luy dimbali mbokk taalibe yi ci murit boo xam ne digganteem ak sëriñam dafa am lu la war muy ndigal ak jaamu yàlla lépp loo xam ne mooy ndigal loolu képp ku mos a gis ci loolu lay teg képp koo gis ci loolu la nekk wax dëgg yàlla bisam bi nag daanaka moom wan na boppam na mu mel noonu ci sëriñ bi bis wan na ko ndax Cheikh Ahmadou Kara Mbacké bu demee bu jël taalif teglal ko mbokk taalif bi fa ci liggéey kon kooku euh, la mu newoon waaw waaw xam nga maanaam dafa fekk ne maanam moom la ko war ca la newoon jikko yi sëñ bi bëgg mu ne ci muy jikko murid saadix ak jikkoy taalibe ba tax na sëñ bi xamoon ne ndaw lu ma ko jox rek incha allah tàggatee ndaw loon rek ni ko sëriñ bëggee na ci tegu mooy nag mu liggéey ci liggéey bu mucc ayib ko xool jotaay bi dëgg yàlla xam ne maanaam loolu yi la ko sëriñ bi santoon def la ci la kaw njortam dëgg yàlla ñu leen di seedeel daal murit saa def na te jàmbarit sëriñ Tuubaa la dëgg yàlla li mën na wax lu ñu mën a wax ci moom nag bëri na waaye dafa fekk ne maanaam gis nga lu fees ci xol rek xajul ci làmmiñ waaye fii bi ñu fi ñëwul ndaw la ñu waaye gis nga waaye li ñu roy ci moom ak jëm ji ak jëmm ji ni ñu ko doon tataanee bañ dem fenn ba ñu xeeb ñu loolu nag gannaaw yàlla ak moom la kon ñu leen koy seedeel baax yéen nag waa Medina Télé Médina di leen sant leen gërëm ci seen liggéey bu rafet gis nañ ne ni ngeen di boole ni ngeen di boole maanaam jël mbir waa Médina ak yitte waa Binna ak askan waa Binna def ko muy seen yitte lépp loo xam ne mooy boole wala rafet la yéen a ngi ci kon nag lii yàlla ko suñu borom ful te yëgatu ko yéege leen barke Seydina Mohamed. في القلب في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون